waxtaan bi kum njiiti réew mi Macky Sall dialogue bii muy woote nekk lu dëggu ci moom du samay kàddu Bougane Gueye Dany moo ko wax turbine yéen kaay yeggee ñu ko fa xam le ne woote gi nekkul lu sincère ci njiiti réew mi ba ci dialogue ba si boppam sax sincère fa caa yokk na xam ngeen njiiti réew mi lan la bëgg ay partenaire yoo xam ne fa ñuy faxee ba daga nalal ko ñetteelu mandaam bi te mboolem dialogue yu ñu fi mës a xamal gars yi fa ñoo mujj def baara yógoo ay dil ci kaw ndoddu sénégalais yi ba tax man Bougane Gueye Dany ak waa gëm sa bopp xalaatuñ sax naan ñi ngi bokk ci dialogue bi njiiti mi woote ndax fay na naxe Jibril Seck njiital MC ko ñu nit d'accorduñ ci dialogue bi naka noonu ñetteelu mandat la dépêche yéene kaay ne googu ñuy wax m fa ñoo ba tëdd ca naaj wa ne duñ bokk ci dialogue bi janoog taskatu xibaar yi lañ doon ni ki démb léeg ko yéene kaay dëggal ko ne waa F24 yi nee nañ demuñ wuj ji ba yamuñ fa fukki fan ak ñaar ci weeru mai bii fa ñoo fas yéene xamal ndaje mu mag a mag lépp ngir xeex ak nguur a njiitale Macky Sall info yéene kaay dëggal ko ne wax lu leer nañ dialogue bi njiitale mi woote nee nañ faale wuñ ko te seen yoon nekku ci te duñ fa teg tànk liñ bëgg mooy mooy fexe niñ xeex ak nguur googu fexe tamit ba njiit réew Macky Sall deltu ginnaaw ci candidature am ñetteelu mandat bi mu ñu ne déetewaay fa ñuy sàkku tamit ñi nga xam ne fañ leen a jàpp tëj kaso te politique rek a tax defuñ dara ñu bàyyi leen génn kaso gi réew mi yéen kaay na F24 wax na la lañ itteel njiit réew Macky ne nañ l'évidence fa ñoo bañ na duñ dem wuy ji dialogue bi seen ñàkk wuy ji googu nag gàcce gu mag la ci nguur gi laas yéen kaay ne ndaje mi F24 doon amal démb Khalifa Sall fa ñàkk dem nag gim ñàkk dem a Ousmane Sonko ak mi ture ay noon la ñu woon démb waaye tey jii seen diggante fay gën di ratax a yaaw seetal yéen a ngi fàttaliku wote député yi passé diggante Tata Mimi ak tonton Sonko sànnante nañ fi xeer waaye tey jii de ña ngay jàppalante de wal fa ji yéen a kaay dëggal ko ne li leen jubóole nag du dara lu may dialogue bi njiit réew mi woote Sonko d'accordut ci Mimi tamit d'accordut ci waaye Mimi Touré fi mu tool nii gaañi fañ koy saaga ak a tëkku indépendant yéen a kaay na saaga yi ak tëkku yi kay fa merloo Mimi Touré moo tax ñu koy def noonu ba tax ma ngay artu nag Ousmane Sonko ma ngay solidarité te ak moom express yéene kaay ne juboo diggante Mimi ak Ousmane Sonko baaxul ci njiitëram Macky Sall de leer leneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy ne liberté de la presse taskatu xibaar bi xam sañ-sañ def liggéeyam te dara du ko ci fekk kenn du ko xoqatal li ni mel fa deltu ginnaaw Sénégal ndax classement mondial daaw Sénégal 73e place la jëloon ren nag Sénégal 2023 104e place la jël si du quotidien ne loolu mooy ne liberté de la presse fañ koo salfaañe Sénégal enquête yéene kaay dëggal ko ne ginnaaw diggante nguur gi nag ak taskatu xibaar yi juboo xamut ca Abdou Karim Fofana ne Sénégal respecté nañ liberté de la presse bu ñu kenn rey ay classement yi nag ñoo jël ndaa rek avant ndaa rek ñun faalewuñ loolu société civile bi mel ni ko daan ko yow tamit bul wax loolu Sénégal moom li ñuy def journaliste yi ñëpp gis nañ ko jàpp tëj kaso surtout nag journaliste boo xam ne yow li ngay wax neexul nguur gi faa la jàqal de colonel Wardini ne journaliste seen bopp ñoo war a jël seen responsabilité le mandat yéene kaay na fi mu toll nii fañ ko jël otage ci réew mi maanaam fa ngeen di wax lu ñu neex wala ngeen dem kaso lii yéene kaay na taskatu xibaar seen ji mësta am Sénégal libération na Fall la ci jox misaal xoolal Babacar Touré journaliste kéwloo fi mu nii gars yi fañ koo dóor contrôle judiciaire xattekat ba nekk deuxième cabinet moo ko def ni ki démb direct news moom fa xëy di sargalaat Mame Less Camara journaliste bi génn àdduna te ba léegi mel na ni mi ngi dund ndax liggéeyam leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne kër ga ñuy wax poste ñaari junnee liggéeykat ak juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak benn fañ leen a nar kaj dàq leen fa l'observateur moo ñu ko xamal ñi fa ñu ñu dem ña ca des fañ leen di licencier dàq la ko waral nag mooy koom leen source ay yéene kaay moom fa dikkaat ak ñun ci tukki gi Ousmane Sonko amaloon ci réewum Gambie exclusif yéene kaay di ñu xamal na moo di ñaa nee na 49 milliards yu Prodac yi ba léegi moom du ko bàyyi bés bi yéene kaay di ñu xamal ne li ñuy wax économique sociale et solidaire ndakaaru njaay mooy capitalu àdduna bi ci ndaje mu mag mi fi xamal yoor yoor yéene kaay na ko ndaje moomu Barthélemy Diaz maire bu ndakaaru moo nar a taxaw kaasal xale jigéen yi ak soxna yi nekk ci dendu réewu Afrique source ay yéene kaay di ñu xamal ne banque Sénégal yi fa ñoo a lebal député yi nga xam ne fa ñoo bëgg leb xaalis ngir lan moo ko waral laaj bi le kaay moom fa àddu ci recensement général bi ñu war a amal ci réewum Sénégal xoolaat askan wi ñaata lañ wal fajir yéen kaay moom di ñu xamal na ca réewum Burkina Faso sénégalais sonn nañ fa fi mu nii de ah. yaaw seetal ay yow téeméeri camion yoo xam ne commerçant sénégalais ya fa nekk ñoo ko moom waa burkina fañ leen lakk ba jeex tàggat yaram Boulaye Dia ma ngay toj Italie de démb ñetti bii la dugal record yéene kaay moo ñu ko xamal stade yéene na ko faala ci yokkal bii mooy fukkeelu biyam ak juróom ñaari yoon triplé mooy meilleur buteur ca clubam ba record yéene kaay bu leen fàtte Nicolas Jackson sénégalais bay football Villarreal moom it dugal na ñeenti bii Makumba Diop enquête ba taqal na ka ñuy wax Pierre Jonn te moo yéen a kaay di ñu xamal ne benn maire bu am juróom-ñeent fukkat ak ñeent ak beneen maire bu am juróom benn fukkat ak ñeent ñoom la ab immeuble daal di rës daanu ca seen kaw ñu faatu ñàkk seen bakkan allah yëf yaa ngi amee ca Parcelles Assainies unité 15 maire ba Chérif Jamil Sané ne téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci ay bâtiment ba moytul fa ñuy daanu ci kaw askan wi de le peuple yéen a kaay moom di ñu xamal ne maire bu Guédiawaye Ahmed Aïdara mi ngi ci ay problème de yaaw seetal Ahmed dara fa takkoon ñaareel kajjaa caam léegi fase ko soxna sa nee na mu dem ca kër ga di jëli bagaasam ya waaye fañ ko faa dóor di ko mbuqi ba mu tàlli ñaret ma nga ca urgence hôpital dalal jàmm moo tax fi mu toll ni fa porte plainte ka nekkoon jëkkëram Ahmed dara ci ay dóor ak gaañ abonné si ci suñu chaîne youtube ngir jot saa ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi bu ci bitim réew